gan gi Abdou Khafor Touré ñu ngi lay nuyu. mais maa ngi lay fay euh, soxna si. am mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey jërëjëf euh, yow euh, yaa jiite CGIS SA mbokk itam ci task force républicaine alors njiitu réew mi Macky Sall woote na premier conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes lu mu yéex yéex fukki fan weeru avril yow yoroon nga fi bànqaas boo xam ne mbirum xëyu ndaw ñi la doon toppatoo ci noonu ñu lay laaj ci sa xalaat ban mbir. wala ci lan la euh, nguur gi war a sukkandiku bu ko defee mu mën a xëy na jaare ci ndaje mi amal saafara gu sax dàkk jafe-jafe xëyu ndaw ñi. waaw maa ngi lay gërëm soxna si ci invitation bi tey ci suba gi pour waxtaan ci. xew-xew réew mi di nuyu auditeur ak auditrice yu réew mi FM yëpp di wax nii rek euh, comme ni nga ko waxee conseil national pour l'emploi pour l'insertion pour l'emploi et l'insertion des jeunes bi nga xam ne nii président convoqué na ko pour dix avril Euh, di dafa nekkul création boo xam ne nii jiitu na xew-xew yi am fii euh, loo xam ne nii que que président créé na ko ñeenti weer ci gannaaw mm. euh, mu war a réunion ñetti weer yu ne tombé nag ak xew-xew yi gis nga biñ koy créer ça veut dire que président anticipé woon na comprendre won na déglu woon na ni mbirum xëy ak tàggat ndaw ñi pour ñu mën a am xëy dafa war a nekk priorité ba nga xam ne nii mu créé kuréel boobu nga xam ni moom moo koy jiite euh, ci dajale acteurs yëpp ñu xool naka la ñuy fexee ba solution yi ñuy jox ndaw ñi mu nekk solution yu pertinente alal ji nga xam ne nii moom la ñuy def ci secteur boobu ñu koy xool di ko évaluer période bu régulière parce que nag fi ñu toll nii euh, mbir mi dafay gën a dafa gën a jaadu euh, dafa gën a trouver ni tubaab di wax pertinence am ndax euh, dañu génn ci ay xew-xew yu bari nga xam ne nii gis nañ ndaw ñu bari ñu jóg taxaw euh, manifester seen inquiétude manifester seen désespoir euh, tàllal loxo état bi tamit pour ñu gën leen bàyyi xel gën leen jàppale gën leen dimbali loolu nag conseil national bii di ñëw jàpp naa ni président bu évaluer dispositif bi fi nekk parce que conseil national bi du du du opérationnel coordination la harmonisation la mais jàpp naa ni euh, danañ fa waxtaanee li nga xam ne nii moom lañu nekk di def euh, juróom-ñetti at yi wala li Sénégal di def ñaar fukki at yi ci gannaaw ba pare nag mettre en place euh, lu xaw a en terme de réponse bu adapté ci ci ci xëyu ndaw ñi am na ay effort naam Sénégal yu bari yu ñu def am na ay programme yu pertinent mais loolu yëpp bu fekkee da nga koy def alal ju bari effort yu bari ba pare ñi nga xam ne nii ñoom loo ko jagleel ñu ne gisuñu lépp wala lépp doyuñu euh, wala gisuñu loolu Euh, yow da ngay soppali sa doxalin. Hmm. wala li nga doon def da nga koy dolli. je pense que loolu le président nekk di def ak effort bi nga xam ne nii def nañ ko conséquent quand loolu conséquent je pense que amul benn réew ci Afrique boo xam ne nii au delà ren waxoon nañ si budget bi ñi def effort ëpp na cent milliards nga jëlaat loi de finances rectificative jëlaat lu mat téeméeri milliards ak euh, juróom fuk defaat ko ci secteur bi loolu amul benn réew Afrique donc ça dire tey suñu budget boo jëlee boo ko jëlee presque lu ëpp dix pour cent wala quinze pour cent suñu budget euh, mun naa ne dix pour cent suñu budget euh, mu ngi jëm ci ci li nga xam ne nii mooy jeunes yi tàggat ndaw ñi loolu mais lu tax ndaw ñu yëguñu ko ba mu ba mu waral peut-être manifestation yi dernièrement non non non xam nga manifestation yi li ko waral bari na hmm. euh, mais mais ñàkkum xëy bi ak frustration bi comme ni nga ko waxee fës na ci loolu loolu parce que. Hmm. Euh, pour plusieurs choses parce que d'abord un euh, quel que soit moyens yi nga xam ne ñu ngi def ñun réew la boo xam ne nii réew mu réew mu jeune lañ. mënul doy euh, suñu structuration économie ak hmm. suñu structuration démographique population ndaw ñi suñu priorité première ndaw ñi la war a nekk. Hmm. parce que réew moo xam ne nii seize millions lañ. Euh, presque soixante plus de soixante cinq à soixante dix pour cent moins de trente cinq ans la ñu am kon da ngay gis ni yow. Euh, daanaka dix millions de personnes yoo xam ne ni si sa population. Mm. Euh, ñu ngi am amuñu amuñu ñu ngi toll ci ut xëy. donc économie affaire xëy affaire u affaire u la affaire u développement la. Mm. du ma dugg ci développement yooyu suñu économie dafa am réalité ñun réew mu ndóol la li nga xam ne nii moom la suñu réew di créer emploi matul cent mille yaa ngi dégg ndaw ñi ñëw ci ci ci ci ci ci marché bi dañoo xaw a ëpp nañ lim ci ñett ñooñu nga xam ne nii capacité création d'emploi donc problème bu fi nekk la problème bu réel la. Mm. xam nga bu kenn wax ni problème bu réel la. alors problème bu réel nag il faut que état bi def li ñuy wax traitement social du chômage am alal joo xam ne ni ak dispositif d'aide boo xam ne ni dañ koy teg pour mun a jàppale ndaw ñi loolu nag du loo xam ne nii dañ koy régler ci benn at ku la wax ni mun na ko régler ci benn at wala ñaari at mm-hmm. waxul dëgg euh, donc loolu am na ay effort yu bari yu ñuy def même effort yu ñuy def trois cent milliards c'est conséquent effort yu bari la ñu koy saluer mm-hmm. mais du nekk loo xam ne nii tey Euh, mën na rek saafara problème bi ci at mi dafa nekk loo xam ne nii effort yooyu président ñu koy def ci trois ans boo ko defee ci ñetti at dina am lu bare bare bare bare lu mu régler ci biir réew mi mii faut ñu ne ko ci juróomi at ne ko ci fukki at continuer ko mu permanent loolu mooy permettre à mm-hmm. terme ñu régler problème bi donc loolu mooy mooy c'est c'est c'est une des une benn la ci cause yi euh, ñun suñu population population jeune la demande bi dafa bari dafa yokk bu demande bi dafa dafa dafa tar par rapport ak possibilité yi ñu am. ñaareel bi mooy euh, li fi xew depuis ak muy situation Covid nga xam ne nii situation Covid bi dafa impacté ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci art ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci musique nga xam ne nii ñoo doon liggéey ci spectacle ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci sport yi xam nga ñi nga xam ne nii ñoo nekkoon euh, ci informel bi ñi nga xam ne ñoo nekk ci emploi rural donc suñu économie tamit comme niñ koy waxee rek boo gisee euh, téeméer boo gis presque juróom-ñaar fukk ya ñu góor góorlu ci secteur informel waaw bu fekkee ni juróom-ñaar fukk yuy téeméer yuy liggéey di nekk en âge de travailler juróom-ñaar fukk yi ñu ngi si secteur informel ba pare ñooñu seen activité dégradé wu ñuy amoon revenu ku daan gañee téeméer tey boo ko gisee euh, ñaar fukk wala fanweer ah la nekk di gagné wala maximum ñeent fukk donc ñoom ñëpp dañu am perte de revenu loolu nag boo ko tegee ci at dafa am ay conséquences yu muy indi conséquence sociales conséquence économiques conséquences Euh, yooyu nag moom bokk na ci li nga xam ne ni euh, bu amee étincelle loo xam ne nii benn waay politique fële bu seq ak keneen leneen euh, problème loolu yëpp nag ci manifestation yi ñu woote ak loolu yëpp loolu yëpp daf ci manifeste daf daf daf ci feeñ daf ci feeñ mhm. li am solo daal li am solo mooy nga xam ne nii njiitu réew mi nga xam ne moom moo yor responsabilité réew mi ñu dénk ko ko pour juróomi at yi moom xew-xew bu amee mu am xew seetlu déglu comprendre ba pare nag gën a farlu ci li nga xam ne nii moom lañ ko dénk parce que en définitive moom li ko yitteel mooy servir Sénégalais yi. Hmm. te Sénégalais yi boo leen di servir. Euh, da déglu li ñu bëgg. ñu wax ci mbas moomu yaa ngi koy wax sànq euh, état mu ngi yolomal yëf yi fii ak ñeenti fan 19 mars euh, précisément la ñu annoncé levé état de catastrophe sanitaire bi est-ce que loolu jàpp nga ne dogal bu baax la ak fi feebar bi toll tey kaa yi di yokk bakkan yi rot naka noonu. waaw xam nga dañoo nekk ci phase phase feebar boo xam ne nii moom feebar bu doy la parce que feebar la. wante lay xeex feebar bi muy mesure barrière muy nit ñi moytu mesure yenn nit ñiy jël boo ko defee mu am impact économique impact économique bi day indi impact social crise sociale comme yi ñu gis noonu donc il faut ñu gérer ñaari xeex feebar bi mais fexe ba du ñu du normal suñu économie donc ñuy sant yàlla bi nga xamee ni vaccin bi ñëw na suñu président xeex na ba ñu bokk ci réew Afrique yi nga xam ne nii ñoo njëkk am ci vaccin yi tey am nañ jot nañ suñu réew lu mat cinq cent mille doses euh, lu ëpp dose dina yegg si waat donc am nañ vaccin feebar mu vaccin bu ngi ñëw donc loolu saafara la donc il faut ñu anticiper tamit euh, reprendre économie bi fexe ba nga xam ne ni suñu économie du nërmeelu loolu moo tax euh, ñu atténuer couvre-feu parce que da ngay déglu tamit nit ñi dañu bëgg couvre-feu bi tamit problème la woon euh, waaw sonaloon na nit ñi donc restaurant ko levé bi buñ ko levé nag teewul ñàkkul ni feebar bi mu ngi fi ñuy rappeler ñëpp ñu feebar mu ngi fi dañ ko lever pour revenir à la situation économique bàyyi nit ñu libre mais euh, na ñëpp moytu mesure barrière yi parce que feebar baa ngi fi feebar baa ngi lor sensibilisation bi ak prévention bi moom day continuer mhm. incha allahu rabbi mais il faut que ñu boole loolu euh, beneen feetu xeex la rek bàyyi feebar bàyyi bàyyi bàyyi nit ñi ñu xaw a libre ak liberté mouvement comme vaccin bi ñëw na mais ñuy wax nit ñi ñu kon ne respecter mesure barrière ñu jeexal ak euh, mbirum logement social conseil présidentiel bi ci mujj am euh, njeextalu weer wi ñu génn la woon président Macky Sall defoon ab taxaw seetlu ci cent mille logements yi CGSA bi nga jiite nag am si pàcc bu rëy ana fu ngeen toll si si liggéey bi ak concretement lan ngeen defagum. waaw ñun ñoo ngi si bu baax a baax ñun ñoo ngi si euh, comme ni nga ko fàttalee noonu ay ay bés ci gannaaw président woote na réunion bu mag parce que projet cent mille logements projet phare ci. ci ci ci ci quinquennat bi euh, boobu nag depuis at programme bi di déroulé wu président moo woote woon pour évaluer xool fan la blocage yi nekk euh, xam ne ñu xam ne obstacle bu mag ci ci programme bi mooy question financement bi parce que alal ji ci war a dem moo bari te alal jooju euh, du état rek moo ko ci war a def donc loolu moo tax ñu dajale woon institut financier institut financier yi Euh, daje organisme yeeg société yi jóge ci yooyu ñu xool naka la ñuy saafara problème mu financement wu logement bi en tout cas lu ñu mën a wax mooy programme bi dana démarrer euh, bu baax première logement yi mm. dina dina génn ci at mi lu mat ñaari junni euh, logement dina génn programme bi à partir de deux mille vingt deux dina atteindre vitesse de croisière parce que décision yi nga xam ne nii war nañ ko jël yëpp jël nañ ko te ñu ngi ciy liggéey pour solution yooyu gaaw beneen bi mooy euh, ñun suñu CGIS même ak CDC aujourd'hui ñu ngi ñu ngi liggéey euh, ci logement yi nga xam ne nii mooy génn euh, ci at mi am na ci juróom juróom-ñett fukk yoo xam ne nii si deux mille vingt et bi ñun ci luñ doon liggéey dinañ ko livrer incha allahu rabi. Mm. ak li nga xam ne ni ay parcelle viabilisées ñu ngi koy def PAM. mais hmm. en tout cas daal ñun am nañ taxaw taxaw nañ tem am nañ taxawaay bu mag pour jouer rôle bu am solo ci programme boobu nga xam ne nii programme phare la président pour faciliter suñu suñu suñu suñu suñu suñu compatriotes yi euh, seen seen seen seen dëkku seen am dëkkuwaay ndax euh, fexe ba Sénégalais yi mun a am dëkkuwaay ci douze millions je pense que loolu sensibilité sociale lu président bila te loolu lu am solo la te defe naa ni loolu mooy vrai vrai vrai vrai révolution mm. je pense que révolution bu ñu koy wax loolu moo tax révolution si problème mu askan wi saafara problème askan wi te ci loolu lañ nekk incha allah. Mm. transparence bi itam euh, di ngeen ci bàyyi xel. non loolu moom du am benn benn benn benn problème parce que boo xoolee amoon na déjà base de données nationale bu exister euh, kër yi moom wax dëgg yàlla tout Sénégal ça se fera dans la transparence la plus absolue parce que instruction yooyu la ñu am te ci loolu la ñu fas yéene dox. jërëjëf Abdou Khafor Touré ñu ngi lay gërëm amoon mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ni yow yaa jiite CGIS SA euh, wante itam nga bokk ci euh, task force républicaine ñu ngi lay gërëm. mais maa lay fay bu baax soxna si.